بريء مد من سنوب ومن ثلم ما لا أني بنبي te di nu déglu ñu dellu siwaat sun jataay bi nu baaxoo ànd ak yéen fii ci su 24 actu ñu leen koy amal waxtu wu nekk ci jataay bi nu tudde madinatu ilmi ñu di leen ko amal ci seen sit bi tey nag ñu bëgg si yéene ginnaaw bu nu nuyoo ñëpp ndokkeel leen baalu leen àq ci li nga xam ne mooy jataay yi nga xam ne dafa paase di leen siyaare bu baax di leen ñaanal di sakk ci yéen ñaan tey nag ñu fas yéene waxtaane tomb boo xamante ni tomb bu gàtt lay doon ndax mbir la moo xamante ni ñun ñëpp ñu ngi doon ak moom tey ñu fas yéene waxtaane doomu aadama li nga xam ne yàlla daf koo fonkuloo daf koo aaral bakkanam daf ko aar aaral ko bakkanam ñu gis na nag bu nu dellusee dafa mel ni suñ réew mi ñu ngi ci actualité yoo xamante nii walla li ñuy bëgg a waxtaane mën nañ ne at yi yëpp actualité la sax waaye rawatina jamono bii ñu nekk nga xam ne waxtu wu nekk yaa ngi gis ñuy faat ay bakkan yoo xamante ni du bakkan yu yàlla faatlu te li ñuy gis ca mujj ga mu am ko mooy day mujj rek daanaka rek li wala fi fa la léeb doxe tab bi ca géej doomu aadama bakkanam yàlla daf ko aar sàmm ko yonent bi sallallahu alayhi bi muy woote ci màkka dafa wax ne yàlla de wax na ma ne sunu tuddee baatu seede yi képp koo xamante ni tudd na baatu seede yi alalam ab deram ak dërëmam yépp ñoŋ na ci moom même ki nga xam ne du jullit sax tey dund ci pays boo xamante ni ay jullit dañ faa nekk bakkanam yàlla rëylu ko da ko aar ay alxuraan bi nee na yàlla nee na képp koo xamante ni rey nga bakkanu nit ci lu dul sabab lu dul rey yaa rey bakkanu doomu aadama nee na yow sawara rekk nga jëm te sawara googu nga jëm danga fay dëkk da fay dëkk abadan ba noppi yàlla rëbb na la yàlla dana la mbugal yàlla dana génn ci yow rëbb na la ak dana la mbugal boroom xam-xam yi nee na mbugal mi yàllay mbugal ku rey nit mooy yow ci sa àdduna gi nga nekk danga nga ciy torox maanaam nit ki rey nit boo ko seetluwaatee ba gisaat xam ne dëgg-dëgg loolu ñu ko wax moo ko def dangay gis ne nit ku torox la waaye da ngay gis nit ku xat ci àdduna lay doon nit koo xamante ni daanaka ak dundam dee sax koy gënal te suñ borom nee na képp ku rey benn nit mel na ne rey nga ay mbooloo yu bare bare bare ndax ku rey benn nit benn góor benn waxambaane wala benn jigéen ku waroon a am ay doom nga fexe ba éliminer ko ba doom yooyu du ko am waroon a nekk ci société bi koo xamante ni ku am maana la fiy doon nga fexe ba jël dundam googu loolu yaakaar naa ne képp ku ko def suñ borom nee na sawara nga jëm suñ borom yi tamit nee na képp wala yonante bi sallallahu alayhi nee na képp koo xamante ni jël nga ngànnaay joxoñ ko sa mbokkam jullit wala nga joxoñ ko nit nee na yàlla rëbb na la te génn na ci yow nee képp koo xamante tamit wax nga ni nit dama lay rey maanaam loolu gis nañ ko lu bare bare bare dikk nit naa dama lay rey dinaa la rey loolu bokk na ci li sabab dee gi bari dinaa la rey ñépp na cell kenn waxul dara mu wax ko waxaat ko ñépp yónnee ay message dinaa la rey dinaa la def te ñépp na cell mu dem ba àgg lam doon wax ginnaaw kenn deful benn acte kenn deful réagir moom mu dikk lam doon wax mu dikk appli ko rey ko loolu nag kenn du ko kafe dee kenn du ko kafe yàlla nee na képp koo xam ne yonent bi nee na képp koo xamante ni wax nga nit dinaa la rey yow xetu àjjana doo ko ñam sax maanaam xet gi xeeñ gi rek te àjjana wax na ni ab doxam mi ngi tollu ci xetam mi ngi toll ci di nga dox 40 ans wala 50 ans yoo xamante ni moom ngay dox bis boo xëyee dox ba ngoon bu subaa nga xëy dox ba am 40 ans xet ak àjjana foofu lay àgg. sun borom nee na nit ñi dañ leen a aaral seen dërëm yi aaral leen seen der yi aaral leen seen deret kenn du ko caaxaane kenn du caaxaane rey rey ay nit nag xam ngeen ne yemunu ay daraja rey ab yonant xam ngeen ne gis ngeen ñu rey ay yonant am na ñu rey ay saxaaba nu delloo ci histoire Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou ak ñeneen ak ñeneen dañ leen a fekk ñu nekk ay amir ñu rey leen loolu xam ngeen ak imaam yi wala ñu rey borom xam-xam wala ko amaloon société bi njariñ bokkut ak ku rey benn sàmba suraabali rek bakkan yépp sax ñoo yem ci yàlla waaye danoo gën a foraante wala laaxiratu ak bara darajaati ak bara taftilan nit ñi dañu yemunu ay maqaama yemunu ay daraja koo xam danga ngaa ciblé nag ne man ab imaam laay rey wala chef de nangam wala ko amal société bi njariñ wala nangam gis nañ ne benn sécurité amatul ci àdduna bi wala ci réew mi nit ku mën nit fekk ay nit ci biir néegam fekk ko ci biir këram mu tëj këram tëj néegam nga dikk dajj ko fekk ko ci jël alalam rey ko googu dund bu ndemee ba àgg ci nga xam ne mënatoo toog déglu rajo bi wala télévision bi te déggoo ñu wax la ak tiyaale wala déggoo fun reye nit nit di rey doomam wala jabaram nit di rey jëkkëram jigéen di soode jëkkëram di ko sotti ndox wala ndox mu tàng wala diwlin wala attan koo rey képp koo xamante ni faat nga bakkan nag ëllëg yomal xiyaam suñ borom nee na bàkkaar yi yonent bi salaahu sallam nee na bàkkaar yi nga xam ne suñ borom du ko baale rey doomu aadama bokk na ci bi mu koy lim juróom-ñaar la dafa wax ne képp koo xamante ni bokkaale nga yàlla yow sa kër mooy sawara fa ngay sax mu ne képp koo xamante ni rey nga bakkan boo xamante ni reyluwun ko sawaral sa kër di sax mu ne képp koo xam ne lekk nga alalu jirim sa kër sawara la te doo fa génn képp koo xamante ni lekk nga riba sa kër sawara la te doo fa génn képp koo xamante ni jigéen ju sangewu ju sàmm diinem ngorom nga jiiñ ko njaalo yow sawara nga jëm nee na képp koo xam lekk nga alalu jirim wala alalu jibar ñooñu sawara leen jëm bakkaar yooyu suñ borom da koo lim yonent bi salaa salaam nee na bu ngeen demee ba jamono mujjug jamono bu ngeen àggee ci mujjug jamono li leen koy wax mooy dee day bari alal day bari xanaa loolu àgg nañ ci de àgg nañ ci dee gi kenn nattamlee tut bare gi nga dégg ay xale bu njëkk milliard danga ko daan dégg wala million léegi nga gis xale su ndaw wala jigéen ju ndaw di yor ay milliard ak million doo xam fu mu ko jëlee doo xam fu mu koy dugal te yonent bi salaahu salaam nee na nit ku nekk ëllëg dinañ la laaj xaalis bi dugg sa loxo foo ko jëlee ak nu mu génne sa loxo wala ngaa jéggi siraat danañ ko laaj borom alal yi taxawaay bu yàgg la taxaw yonent bi salaahu salaam nee na ëllëg yomal xiyaam ñi yàlla yi njëkk regle bu nu seetee julli ba noppi ña nuy woowaat di leen regle mooy ña tuuroon deret suñ borom ne leen ana ñeen ñi nga xam ne da ngeen a tuuroon dereti jàmbur yi ñëw leen ma lijjanti seeni mbir ñooña bu boobaa ci géeju deret gënu tuuroon ci géej tex ca la ñuy taxaw ñuy regle seeni problème képp koo xamante ni suñ borom dafa aar lu bakkan même xaru ki rey boppam sax bu ëllëgee sawara la jëm sawara na parce que yàlla moo rëyluwut bakkan bakkan daf koo sàmmlu boo gisee ni mu ko protéger daf koo sàmmlu ndax boo xoolee ki nga xam ne dafa rey bakkan xaru bu ëllëgee ngànnaay loolu mu xaroo woon moom lañ koy jël bu fekkee paaka la woon paaka boobu la ñuy jël muy jam boppam bu fekkee koo xamante ni essence la taaloon essence boobu mu taaloon moom la ñuy def mu taal ko boppam bu tàkkee ba jeex ñu jëlaat ko taal dundalaat ko mu taalaat boppam noonu lay nekk sawara nanu moytu bakkan dafa foora ak alali nit yàlla daf ko fonklu te yooyu yépp nit koo xamante ni yaa ngi dund yi nga xam ne yàlla noppi na yi moroom fi wax naa yàlla noppi na ci mbir yi mbir yi yàlla gën a noppi mooy ku ko bokkaale ak ku rey nit ku rey nit rek sawara nga jëm ku bokkaale yi tamit nit yàlla ak keneen yow ëllëg sawara mooy sa kër te da nga cay sax xam nga sawara mën nga faa dugg ci sabab nga dem ba génnaat waaye kun ku rey nit moom sawar a ngay dëkk abadan dootu fa génnaat wala nga bokkaale yàlla wut yàlla wutal ko ndenn wala nga wutal ko moroom wala nga jaamu leneen bakkan yi nag ginnaaw bakkan yi yonante bi salaahu salaam dafa tiim kaaba gi ne ko ñu tabax la ma toj la ñu tabaxaat la ma toj la ba muy ñetti yoon moo ma gën a lor benn jullit xurmatil muminina axsamu min xurmatil kaxbati kon bakkan dafa bokk ci foor yonante bi ajam gi nga xam ne ci la defee baam gi dana nit ñi nan leen bàyyi ak seen alal bàyyi leen ak seen ab der bàyyi leen ak seen dërëm bu kenn lekk alali jàmbur bu kenn euh, teg ci derab jàmbur dara bu kenn faat bakkanu jàmbur yii nag bokk na ci yi koy indi mooy film yi nga xam ne mooy am ci télévision yeeg ak ci internet bi muy kabo yi nga xam ne dañuy rey nit ak yooyu ba ci sunu théâtre yi nga xam ne théâtre yu waroon a yeete la ngay gis ku ñaar ñun le dañuy sëy nga gis jabar ji rey ko wala jëkkër ji rey ko ñuy wane yooyu wane kabo yi ni ñuy sàcce ni ñuy defee noonu yooyu tax na ba nit ñi yëgatunu sax ne euh, maanaam benn luy rey wane nit sax yëgatun ko te bu jëkk da nga daan gis ne nit rey aw mellantaan wala rey ab kii sax daf ko daan ragal am na sunu mag ñi wala ñu ko paase am na ci ñoo xam ne rey am xar sax wala ginaar sax ñemewuñ ko woon waaye li ko waral mooy déegu bari gi xañ na loolu araamul kenn du ne daa araam mais nit ñi faiblesse lan amoon ci rey dégg ku faatu rek dañ ko daan dégg ay ati at wala ay weer léegi bu ñu demee ba nga xam ne bis bu yàlla sàkk ngay dégg lu mel noonu di ko dégg ci nit loolu yaakaar naa ne jot nañu taxawaat jot na tamit ñu delluwaat sécurité nit ñi sécur nit ñi am sécurité seen dund kenn amatul sécurité mooy booy dox yaa ngi wut koy àndal ñi am alal ñoom wut nañ ay gardien ñu leen sécurité seen kër ba xam bu ñuy génn amatul fitu génn sax ñoom ko am alal wala nga am daraja amatoo fitu génn sax booy génn il faut nga ànd ak ay nit ñu la sécurité ay nit ñoo xam ne dañ lay sécurité yaakaar naa sécurité bi gënoon a jub gën a yomb mooy nit ñëpp jub ku nekk maandu problème yii nag lislaam rek ko mën a régler lislaam boo ko waxee mu ne euh, ku rey ñu rey la nafs bi nafsi maanaam bakkan boo jël ñu jël sa bakkan bu fekkoon na loolu appliqué nañ ko ku nekk xam na ne kon rey yi dina wàññikoo nii ku nekk xam na ne te lislaam solution lay joxe lislaam mooy joxe solution boo xamante ni problème bu am moo ca mën a joxe solution bu nu wàccee la lislaam tëral nag dem di dem ci yeneeni àtte wala ñu dem ci leneen boobaa lislaam dañuy seetaan rek ñu reyante ci suñu biir léegi yaakaar naa dégg ñu rey am picc ni picc yiy dee bàyyi ma yi di dee nag yi di dee nii la nit ñi di dee mënoo toog weer woo dégg waxuma la weer waaye semaine boo xam ne déggoo ñu ne rey nañ nit te nit kat ku ko rey même bu fekkoon tëyoo ko da rey nit ci masala danga doon sànni aw xeer mu dal nit koo ko faatu bu boobaa kooka ñëpp ñu def enquête ñu xool ñu xam ne reyoo ko tëyoo ko bu boobaa yi tamit danga war a joxe dëye dëye nag mooy téeméeri giléem yoo xamante ni moom ngay jox mbokki ñooña bu fekkee tëyoo ko bu fekkee na nga ko tey tamit bu boobaay tamit loolu danga ko war a joxe da nga war a joxe lu toll ci téeméeri giléem téeméeri giléem nag bu ñu ko doon xayma giléem yu yem giléem yu jar deux cent mille ngay jënd rek ba mat téeméer nga jox ko mbokk ñooñu boo ko amul sax yow say mbokk dañ la cee war a jàppale mbokk ñi nga xam ne boo faatu woon ñu ñu donn la ñoo ñëpp war na nañoo participer ci jàppale la ci loolu te bu boobaa danga war a woor ñaari weer yoo xamante ni wala boo amee jaam nga goreel ko kon bakkan moo foor bakkan kenn du ko foye bu nu àggee ci jamono bii nag ba nit ñi di foye bakkan ndax nit mën a toog di menacer nit dinaa la rey ñépp ne cell dara du jóg loole mu doon wax nga toog di ko déglu ba mujj nga jikki-jikki mu ne sa waay mu ne nee na woon dinaa ko rey wala mu ne dinaa xaru ñëpp dégg ko bu ngeen ma deful nangam dinaa xaru wala bu ma deful nangam ñëpp dégg ko di ko toog loolu yaakaar naa am bu yàggu rek am na fi ay nit ñoo xam dañuy wax bu ma deful nangam dinaa xaru kooku dañ ko war a woo waar ko yar ko ñu yar nit ñi yaru diine lii nag ay problème la yoo xamante ni kenn warut a toog di ko seetaan yonente bi nee na man raxaa minkum munkaran falyughayyir bi yadihi ba addis bi àgg képp koo xam mën ngaa dindee sa loxo na nga dindee ku mën a dindee làmmañ na nga ko dindee ku mën a dindee leneen lii ñëpp a war a jóg ñu taxaw artu ci dindee loxo nag ku nekk xam na ne état moo ko man état moo ko man waaye imaam yi war na noo xutba ci mbir yii di xew kilifa diine yi war nanoo yar seen njaboot ci lii di xew lii metti na tiis na te rey nag du mbir moo xamante ni mbir mu woyof la ku ko woyofal yaa ngi woyofal loo xamut ku ko woyofal yaa ngi loo xamut buñ demoon li ëpp ci dossiers yi nekk foofu bokk na ci dossiers yoo xam ne yu mel nii la li gën a nekk nag yow nga rey nit ay jabaram daal nekk ay ji ay ay kii ay ñoo xam amuñu jëkkër walla ay doomam nekk ay jirim ay xale yu ndaw nees tuuti ñu jël la tijji la ci kaso bi ay doomam di la gis gis ni kii moo rayoon diwa rayoon baayam wala ñu xool ñu ne diwa rayoon yaayam nangam ñuy dundandoo ci société bi loolu day tax sax société bi du am sécurité ndax nit mënoo rey baayam wala nga rey ndeyam wala nga rey ko nga toog mu lay gisaat nga nekk ci jàmm loolu xolam mënu ko am na xolu doomu aadama yoo xam attanul loolu kon nit ñi nañu aar nit ñi rey nag yonent bi nee na woon di ngeen àgg ba ñaar dinañ reyante boo laajoon ki rey lu tax nga rey du la wax nangam ki nu rey buñ ko waxoon ne lu tax ñu rey la du xam lu luñ ko rey gis ngeen ne ay juróomi dërëm ay fukki dërëm ay werante nit génn rey nit loolu ak mujjug jamono ci lan tegtale te yonent bi salaa salaam nee na ñaar su fekkee dañoo xuloo ku nekk dem wax ne damay rey sa morom jëm ñuy xeex kenn ku nekk bëgg am yéene rey sa morom nee na ki rey sawara jëm ki nu rey sawara jëm ñu ne ko ah yonent yàlla bi xam nañ ki rey moom mu dem sawara mu ne ki nu rey yéene rey la amoon moo tax yéene jooju lañ koy àtte innamal amalu bi niyaat moo tax kon mbokk yi ñu delloosiwaat suñu xel delloosiwaat dëkk bi nu nekk delloosiwaat réew mi nu nekk delloosiwaat ne xam na dara dara daray àdduna jarul daray àllaaxira place buñ la dikk wala intérêt buñ la dikk wala rey nit ngir sacrifice wala alal dara jaru ko dara dara daray àdduna jarut daray àllaaxira ñett a yoo xam jarut ñett ñett tayel jarul ñàkk bànneex jarul gàcc àdduna jarul alaaxira bi ci gën a doon dëgg nag mooy darey àdduna jare jarul darey ataaxira ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ki nekkoon ci caméra bi mooy seexu Seexuna Njaay ki doon def réaliser émission bi soxna aw Njaay ak baara monteur bi ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen jox daje ci yeneen i jataay wasalaamualeykum wa rahmatullah جنة لنا جريء